wal taatufi bi nasratin kat nabsir mbokk yi delsi nañ ci Baye Ousmane Ndiaye ci xatam 30 bi bindab alaaji baaba bi ci suuf ci question ñeenteel bi mm-hmm. euh, lañ nekk fii ci daara asaabu cheikh bi asualu rabia mm-hmm. laajte ñeenteel xawluhoo sallallahu alayhi wa sallam àddina bii sijnul mu'mini kasoog ku am imaan la àddina kasoog mu'mini waxu ne musulmaan yi nag mu'mini seen kaso muy àddina waaw loolu mooy nag aljaaba tontu anal mu'mina naka mu'mina ku gëm laaraata den noppaloo ñu ko wala naima amul xewal wala lasata amul bànneex illaa fi musaadati wëcci mawlaawu lu mooy mu jëno illaa musaadati illaa fi musaadati wëcci mawlaawu lu mooy mu jënoo jëmi kilifaam nga alkarim tëdd bi xayaanan ci janoo min xëyri waasitati tëjali ci lu dul benn diggale tëjali fekk amul ko rek àddina am neexul moom mumin te bu ñu mumin mooy mu xaarib balaa moo am bànneex daal te lii kon nag kon nag loo nekk na te àddina ji moom tànk yaa ci yaa ngi ci duniyaa génnu àddina doo mën a am loolu lee tax bal daf ko gis kal xamari mel naka weer laylatul badri ci guddi fukki ñaar wasaalika te loolu nag mu am ko laa yeesu du wér maa daam fekk sax na alal du jàmm fi duniyaa ci àddina fii mi ngi sax ci duniyaa rek mënta am loolu su ko defee fa yes tàddu dafay tar sew ko bëggam bëgga li liqaayi mawlaaw dajeg kilifam ah loolu nag lii muy am lu ko métit tar lool fa yes li ko fa yestaaliku dafay alak alak bu jaam fii sidati xutbi mawlaaw ci tartaru jege boromam maanaam kilifaam nga wama saalika wama saalika ànd ak loolu yëpp nag lam koy jige jige da jige koy aqara bu ma gën a jige lam koy jige jige du ko gis wala yesulu du àgg yokk ili jëm too wari saalika lee tax nag yan sadu lay la lay sadda lisaanu aalil xaarifi làmmiñu xaalu aarif alfaani fi mahabbati wa min al ajaibi fal ajaibu wal ajaibu qurbul abibi wa ma ilayhi wusoolu da dégg daay kaddiko yi waaye xamul sax waaye li lii baaxee woykat bu koy woy rek nga xam ne kii day ki xaal xaalab xaalif bi jige yàlla te yetu ko moo wax moo am moo nekk ci xaal bi wa min al ajaay bi bokk na ci kéemaan yi wala ajaay bi kéemaan yi nag jëmmatun daf ko jëmmatan waaye jëmmatun lu bëri la kéemaan yi bëri nañ ñu ne ko bo yan ma bokk ci kéemaan mu ne qurbul abi bi jéege soppi ba wama ilay wala wusu uma wusul ak ilay jëm coom jige soppi bi lool ba mi ngi lay xëy tàngooram lay tàng te mën a koo mën a koo jot ci moom ah su ko defee wala yaqiru du sax xaraar woo saxwaayu alxaaris ilaa biroo yi sëy ji lu ma dafa gis ka xam ne mooy te mooy kilifaam munta am ak dal fekk am loolu wala raxate def na fa loolu ñëpp ko ilaat lii lu mooy rek ci loolu mu am ko rek wala yetta ataat du jàppat du jàppat loo ñor ko maadaama fekk fekk sax na fiar ci daal fi kër gi lim fi bëgg mënu ko fi amee wala siñ na amul kaso asar gu gën a gën a foor gën a tar minasa lii kaso gu gën a fort kaso gi ci xarit kaso gi yëpp mu gën a fort moo tax ñun bu ñu dugal kaso yi gannaaw ñu ngi jarog ki nga xam moom lañ sopp rek kaso ga mi tuus rasaqanaa yar sa war sagañu allah yàlla al mawtadee fi maabati yàlla nañ dee ci bëgg ko wan na sara ak xool ilaa wu ci jëm ci jëm jëm alkarim bi jaay jaabil ahsam ci daraja yi ki àq na mooy kiiraay lu mag laa mag waadrati sirri yi ak ki àq na mooy payu sekkam sekkana al mu sëram ba al mutalsam hijaabul ahsam ak sirul mutalsam ci seen daraja amin woomi bokk na ci ay den ba tey radiyallaahu anhu woomi maa bokk na ñaa xamante ni sax caxee bi coom sayidna su bi alxanmo Cheikh Ibrahim ibn Alaaji Abdoulaye Atijaani radiyallaahu anhu wa nafaana bi amin qawluhu mal xarfu ana ban xaraf amada moo tëbb fii dan feel moo ko tëbb wa nasabahu mu samp koran xaraf yoo xamante ni moom moo tëbb jëf jë te moo ko samp moo ko nasa wal fii lu te fekk ab feel de fi ni man nekk ñaari araf ah mu nga nekk xumaas yenn wala mu nekk juróom moom mu nekk ñaari araf te juróomi araf amila jëf na fi ismi ci turo ala arfi rubaayi ba mooy jëf ci turo nag ci xarafu ñeenti xaraf ñeenteel ci numéro 4 maanaam la ko la ko la jëfee ca arfu rubaayi loolu laay laaj xaraf bi nga xam moom moo tëbb fi an ba te moo ko samp fi an ba dafa nekk ñaari araf yoo xam ne juróom lañ jëf ja nag ma nga jëf ci tur woo xamante ni xarafu ñeent ñeent lañ lii de max dëgg yàlla man de maa ngi nii xaw ko nag benn laaja <laughs> ko ah damay wax sama dëgg de maa say u nekk da nga ilaa iyaw bi maanaa te kat mbir mi nekk lu mooy moom xarafa du lu mooy mooy jëf jëf wala yu sadduqoo te mënta dëggu nag ilaa mudaafan ilayhi lu mooy nag nañu am na yut si moom mu taxadun mu belloo ñu ko ma anan léegi nag man man mënu mënu dëggu moom lu mooy nag dañ def ko mudaaf ilayhi bi maanaa dañ ko caay wéet loo maana woote moom nag turam mu nekk alamun mutlaqun muy lu ma lu ràññeeku loo xam nañ ko boyal woowa ndax lii waxaatal xaq waxaatal ndax lii xàqu xàq la am kasibun wala lii ma ay dëgg la wala ay naat la bayinoo biral leen bayaan biral saaf li bàyyi ñes moo moo ko cax caxu bàyyi la bayinoo bayaanan saaf leen bu set waajurukum seen pay kaw na mooy nekk li li leen def fayee ku def lii mooy taifatun min sabihi law ijtamaat axtaabu ummatu nabi mutabi maa wasanoo saaratan min fardin minha fa kayfa bi imaamil fard kon nag liñ leen di fayee mooy loolu ngeen bokk ci nga xam ne boo xam ne min sabihi ci àndoo ya am na am na kuréel am na xaaj ca àndoo yi cheikh ya law ijtamaa ba dañoon nabi xutbu yi xeetu na bi almutabi ñaa xam ne ñoom ñoo topp ñoom bu yooyu buñ dikkoon tolloo ak asaab yooyu maa wasana ñu luñ peese saaratan benn karaw min fadañ benn ci ñoom benn karaw ci ñoom benn xutbu mën koo peese mi nag ci bu yow maanaam saaba ya àndooy laa waaye kee xam ne mooy imaam fadu bi nag koo xalaatul moom benn xala benn karaw mu koy peese kenn ah kon nag waanu jëleñ ci ba tey eh, fi addaxaa fi addaxaa fi ëtti ñaata mooy limu kuréel boobu ila wa maa sayyidnaa illaa bimaa alimnaa ñu nag mënuñoo seet lu mooy loo xam ne xam nañ ko nuqi la toxal nañ ko min xat sayidi ibrahim ci mbindu Cheikh Ibrahim ibn Alaaji Abdoulaye Atijaani sayxul ma jaaniin yàqale mooy say say seexu sëriñu ñiñ ne dox lañ bi kóosi kóosi ah moom minal waalidi jigéen na ci bàyyi Usmaan radiyallaahu anhu wa asal jawaab xaal asilati al mutaqaddimati laaj yooyu nga xamante ni moo paasoon am na tontu bàyyi ko ci bàyyi Usmaan jaay bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu ala sayyidina muhammadin wa mu commencé tontu amal ah, xarfu nakaara fa bon al ismul ismul asam al kabir ismul asam kabir moom mooy xaraf xaysu innahu bi nga xamante ni laa alaamata amul benn maa dalal ñel ko man laa indi ne lii moo ñuy tegtal ismul asam kabir amul de xam nga boo indee alif dafa am ak ko alifay wali lii nag ismul asam kabir amul lu taxaw lu wane ismul asam kabir aw benn xaysul ah, la anoo la alamatoo moom nag wa amada tëb na filan su ma na sa boobu ma sant ko war fii lu fekk ala arfay ni te fekk fi'l ba dafa nekk ñaari xaraf xam nga wax dëgg yàlla li nag xam nga léegi kon boo ko seetee ismul asamba la def benn xaraf ah xaw du ko xamu ko de dama kon moom la def xaraf woo xam ne mënuñ koo indi def ko muy màndarga mun na seet ba ko feen boo xam ne ñaari xaraf la ñaari araf a aman fiilu naka fee foo moom al ismu tudda al ismu al asam feen bi rek mooy ismul asam al xaas bi rasulaay tur wañ jegalee ismul asam bi nga xam ne moom jege rasulaay moom mooy feen ba mooy feen ba aman fiilu jëf jëf mooy ismul asam al xaas bi rasulaay sallallahu alayhi wa sallam ah moom itam foo moom ala arfayn ah maanaam boo déggee xarfu fii nag xam nga xarfu yaa ngi ko jàpp xam nga ñun buy na xaraf dañu fa ne mbind xarfu mooy ñaari pet moom ñaari pet ñaari tet la ñaari côté la xanaa lu waxee loolu war ngeen a kaw a dégg tuuti doo ko jàppee xaraf buñ bind alif laam la déet moom nag xaala xarfay nii ñaari pet la mm-hmm. pet mooy cat ñaari côté mm-hmm. ay jee tey nii ñaari côté la moom nag mm-hmm. moom fi al ji nga xam ne moom la nasab moom mooy ismu xaalis lay fi al jee dafa am dafa nekk ñaari cat cey itisaafan li lay dafa meloo dafa dafa def dafa tax lu tax dafa nekk itisaafan wa imdaadan li nabi ñaar yooyu ma indi ñaari ñaari mel ni laahu am tëbb ni bi tëbboo xëy moom dégg dëgg lii nag salaahu salaam lii tax mu dikk nag mel na bu ne ñaari ñaari xaraf ya bu sa xel xalaat si ñaari ñaari xaraf muy alif la déet ñaari pet la am ñaari période rek yàgg naa leen koy jàngal ki nga xam ne dafa am ñaari taraf démb démb sax mu jëy ko muy jàng poom nag commencé dafa nekk ñetti juróomi juróom lañ ah luñ ko defee nag bi tat eh, eh, infil miimi dañoo multiplier miim ga ah dañoo lu ñu ko defee juróom dañoo tat if mink <laughs> dégg nga wan naf bi buñ ne nasab nag xaay su ba nga xamante ni yëkkatiku ba mu yëkkatiku minallaahi wa ilayhi ci laa war a yëkkatiku ci àllaahu del seen moom ah tur dafa yëkkatiku fu mu yëkkati ko min laa ilay wal fiilu jëf ji nag xamilat fi ismin ala atfit moom nag jëf ja dafa jëf ci tur woo xamante ni benn xaraf la maanaam benn pep du nag benn ca dong la bi maanaa te rubaayu la moom moom wal fiilu hamila bi fi ismin ala arfin rubaayin xam nga loolu boo xoolee bu ñu benn xaraf nan lay nekkee ñeenti rubaayi bi maanaam moom dafa nekk moom benn pet la nekkee moom fi'il ba dafa nekk dafa jëf ci tur boo xamante ne benn côté la moom trop benn côté la te trop ñe rubaayi la <laughs> dégg nga xay amada moom moo tëb na jëme aw saaf mboolem lépp lu am ci tur wa asmaa yi ana melokoon wa asmaa yi ak lu ma am ci tur li taaliyataha ca ka ko topp ka la ko amoon yëpp la ko toppee ka xam mooy taaliyatu moom benn pet la yore kële moom dafa yore woon ñaari pet tey commencé yu kële moom dafa benn pet tey lu baax yi moom nag moo tëbb lépp lu amoon ci melok tur moo ko jox nag li taaliya ki nga xam ne moo topp ci koom mu ne ko am may naa la xam nga loolu dafa am loo xamante ni moom buñ paree ñu xaw koo leeral ci loo xam ne kenn du ko <laughs> yàlla <laughs> dégg de ah dafa am yoo xam ne maa koy ñaan ni képp koo xam ne yaa ngi may oon naa naa koo kii xaw ma ko de ba nga ma wala naa la ko yónni ci whatsapp <laughs> ne ma <laughs> ko ne oustaz lu la nga xamante déedéet <coughs> ah, ci xam ne kii xalaat buñ toogee ah ñu mën a toog ne bii nii mooy lii lii mooy lii xam nga foofu wane la wane lay doon du doon wax wax moom nag ah kon nag wa asmaa yi li taaliha foofu moom rubaayul moom itam ki nga xam ne moom lay tëgg ah maanaam moom nga xamante ne moom moo tëgg rubaayul bi is bi bi itibaari is bi almahud buñ xoolee turam nga xam miinee ko ko miinee nañ ko turuñ ko miinee ñeent waaye nag benn xaraf ama shay'un la sii mbir ma nga xam ne laysa illa iyaw la nga xam ne du dara lu mooy moom donga wala yusaddiqu illa mu daafa nii ci kenn mënu koo nag dëggal lu mooy dañ ko ca wéet mu tay da loo maanaam ñoom ñaar ñoo bennoo maanaam moom mbir ma nga xam ne moom du lu mooy moom dong nag mbir ma nga xam ne du dara lu mooy moom dong la ngir ma sëy uba nga xamante ni uba nga laysa illaa moom duut moom sëy uba lu may moom turu benn ma wala yushriku illaa mudaafan ilayhi tekke boo ca wékku ca biiru mënta wér te mu tayit loo maanaam moom ñoom ñaar dañoo bennoo maanaa kooka nag man bàyyi Ousmane Dia man Ousmane Dia dama tax foofu al wujudu mooy wujudu alif gi nga xam ne ka nekk naa wala sayma woo dëgg la waaye wujo bi nga xam ne moo am te dara nekku fi moom foo moom al anama alama alayhi kan mooy wujo bi nga xam ne nii mu nekkee nii nii tey jii noonu la ma sa nekkee noona te du ci jógee wama salika ànd ak loolu yëpp nag laa yu sudiku dëgg jëmee maraati bi mboolem ay martabaat alli nga xam ne iqdaaw daf koo sàkku illaa baadal اولويت ما الى المال الى بعد المال وهاتي لماي غنا مال وهاتي فك ام مام من لاكو دكل وما تعلق لا يوجد كو جيمي مراتب مبولم موم غا خامتي مو في نيك كين مو دغل مرتبه مي ال في يقم الاختلاع موم مو ساكو مرتبه كين مو كو دغل الى بعد المال وهاتي لماي ناقني موم نين سوخلو خوخه موم وومم على مون مو داس موم حالا ما كان ما اسبرانيكو man la dëggu fekk maalo xaaji amul moom martabaam yi xay sa ànd koo ba nga xamante moom laa yaxtaaju ajoo di taabir yi pour teg ko soxloon nga koy taabir wa mutlaqun dañ koo boyal xay sa ànd koo bi nga xamante moom li tax ñu dañ ko boyal laa ibtidaa lahu wala intihaa xamul door waay amul yem waay bal wujoodun mutlaqun xam na boo xamante ni dañ koo boyal lool laa tontu ci boobu lii nag lu am la maa ngay ñaan mboolem ñi nga xamante ni ni ñun firi nañ ko sax firi nañ ko tuuti may nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy oote nañ ñu tekki lii nañ toog ci digg mbooloo nag gannaaw dañ taxaw ci digg mbooloo dañ taxaw ne mbëru làmb di di bàq nañ taxaw ci digg mbooloo lii bàyyi laaj na ko képp ko xam nga ama fatul akbar nga ne am naa fatul akbar ma war saa mën a firi lii kon nag lan loolu teg waa ma ma salta andoxoo ne moom waaw ndax li ma wax nii ndax dëgg la wala ay kàcc lii ay dëgg la wala fen ndaxte lii nan nga koy dëggalee ah ndax yow mën wax nii la waaw lii dëgg la wala ay kàcc la foo moom mu ko foo mu la bàyyi fan xàq lu tax li isbaati laahi taala laxaa ndax laaxu ma ko xaq lu laaxu sax tey xam na kon boo xoolee côté boo xaq xàq la wakkasibun tey kàcc la li am laa wa taala laa wujooda ilaa wujoodoo kon boo ko seetee fen la ndax laaw rek xam benn wujjul amul <laughs> laa ilaaha illallaah lii moom jarul ñu bëri tey mbind mi nañ ko nañ ko def bind ab liggéey lii